leeral tuuti TV te mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér te wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abone tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu partage tas bépp gox lu ñëw dëppum yendu leeral bi tv international am mbir mu bees léegi léegi la ko jël seggi xibaar saytu ko door a jàllale amul ci kat morom leen di dendale fu mën a nekk lu mu sori ñu daal di dem jëli xibaar bi léegi léegi def ko bëm leeral tv international abonné partage tey aimé ànd ak Lat ca deqale mooy lu am solo te deqali euh, xam nga Lat Joor bi nga xamee ne moom wurtoon nekk dammeel wax Jóob la sant dammeel Faal lay sant waaye néegab géej ci boppam néegab géej ñoom dañ ne gannaaw ba ñu waroon a falu te sant Fall ay gone lañ muy muy muy Samba Laobé Fall Samba Laobé Fall ak Samba Yaaya Samba Yaaya mook Lat ñoo ñoo seen ndeyee bokk ndey ak baay Samba Laobé nag Kuraja Mbooj a ko jur Kuraja Mbooj ak Lat Joor ñoo bokk benn ndey maanaam kon Sàmba bi moom Lat nijaayam la waaye bu dee Sàmba Yaaya Lat Joor Lat Joor moog ay doomi ndey lañ seen ndeyee bokk ndey ak baay may sa tend may sa tend joor moo leen jur moo jur Ngoone Laatiir moo jur euh, Debba Sukka Debba Sukka te turam di isa tend te Lat Joor wurtoon a nekk dameel waaye nag di néegab géej ñoo ko samp ngir ne bi jamono yi nga ma koddu ya ni Mbaru euh, remplacer na domam ji ñi wax Birima Fa Birima ngone latir nga xamne ne la jora bok ben nday bim bim ma koddu mi koddu ya ni Mbaru di ab gelawar mo ko remplacer mom nak mo xex won nak mom mo ñeuk dàq tubab bi ci jatti <coughs> mo ñeuk a tubab bi ci jatti feder ba feder ba ci bopom ma kon di yànd mbëru moo ko dàqoon ci jatti waaye xam nga kajoor rek néegab géej dafa am doole néegab géej bi nag euh, daa di samp nag Lat Joor Lat Joor nag buur geet la war a doon waaye moo ko samp bi nga ko sampee nag booba Majooji Degen Kodd bi nga xamee ni ma Kodd moom mujj na bàyyi Majooji Degen Kodd moom lañ moom lañ fal maanaam jàmburi jàmburi kajoor yi mom nak ab drobe la biñ ko xalé nak mok Lat jor ñi andi dem ak ñim ñom dem wah War sal ne ko nak dang koy wax ne ko na la jox béjjén ak mi ngoran ak cialaw na la jox xet ndamu tank yu ñu ko laaje mu ne ko yow loy doye loolu yow yow bër geet nga wara doon mu ne ko yow sa bay sa bay ab dong la won di te ni nek damel loola na ca lañ jotee mu daal di teqalikook moom mu ñëw ci baayam nekk na damaa bëgg nga màggal ma damaa bëgg nga màggal ma mooy damaa bëgg a dugg néegu góor Lat Joor booba dugg gutoon néegu góor ci lañ ko dugal néegu góor yóbbu ko xam naan xam ci wetu kokki la ngir dugal ko fa néegu góor bañ ko fay dugal nag war a defar ab lël Maju joji degan ko daal yonne ci daal yonne ci serigne kokki yonne ci serigne kokki mudu amin tayala serigne kokki mudu amin tayala ak samba amin tayala baba ñofa nek serigne kokki njaga isa jey mo len jur ak amin tayala nga xamne amin tayala sa saa fatma ko jur kon da ngay gis ne kon amin tay la mami Lat jor la mami Lat jor la kon manam yaay bàyyi Lat jor amin tay la bàjjanam la lola taxone Lat jor ñewon fa nak ñi wara def fofu leel ba ci la ma joji digen ko yonne ndaw yonne ndaw ne Lat jor fofu ñukoy fofu ñukoy fi defal leel bi bu mu fi am na ngeen fi jóge daal di yónni daal di bind leetar sëriñ kokki mu du ci la seen yaay ci boppam seen yaay aminte yàlla yaa man de ay sëriñ laa jur su ma juróon ay ceddo de lii rek du am lii du am ndax sama sët ñëw fii ñu bëgg koo génne ci la suñ mu suñ ba kokki suñ kokki mbuudu aminte yàlla daan dal baa taxut a nekk baadoola ñi ngi xaar maajo yi dangeen ko ba mu dikk bu dikkee danañ ko lijjanti ak moom kero bañ ñëwee nag ñoom ñoo ko dàq dañ dàq ci njëkk dàq maajo jigéen kodd di defar lël ba ba yegg ci la Lat Joor nag xeex ak tubaab yi ngol ngol xeex ñoom loora ngol ngol nag moom lam leen def musiba la ndax rayal na tubaab bi téeméeri tubaab ak ñeent ba noppi nag loora nag moom xala tubaab bi fa yoo ndax rayal rayal na la joor lu bëree bëree bëri ñu ngi wax naan juróomi téeméer rayal na ko rayal na ko la joor ndax kenn lu andi kenn moom ba kenn ko sëqatee moom lu bëree bëri daa dee ci la lat jor nag daa di dem saalum lat jor demee saalum nag Sin la njëkk jaar ba mu jaaree siin tubaab bi yónnee ci buur siin kon Lat Joor moomu kat boo ko boo ko fatee danaa defanteeg yow nga génne ko ci la ci la ci la buur siin daan ne kon li may dégg Lat Joor yëpp daal kii la lii mooy Lat Joor maanaam pour def ko loo xam ne daal wax ko loo xam day mer de bu yoonam Lat Joor nag mer daal di aw yoonam daal di ñëw Saalum ndikkee Saalum nag daal euh, waxtaan ak Maba Jaxu Maba Jaxu dadi koy daal koy fat daal di nekk Saalum tubaab bi di yónnee na ci Maba Jaxu ne ko Lat Joor dana dana ko génne Saalum wala danaa danaa danaa fekk Saalum bool leen yéen ñaar Maba Jaxu nanguwut ci la ci lañ xeex ak Paate Euh, tubaab bi bind lettre mujj gi moom it euh, amoon na ci problème xëy moom mbagg mi sax da caa gaañu woon ndax tubaab bi Lat Joor ma euh, Maba Jaxu wan nañ tubaab bi lu dara jarul ci Paoskoto ak Paate Badiane ñu jóge ca waaye Lat Joor daal di fopp bi daal dem siin mbettam kër ngóor ba bett buur siin waaw muy mbettam kër nguur ba am jigéen ñu jëloon lingeer lingeer euh, euh, selbe ak faatu cuuk ñu jot naa koo jël ci ñoom lingeer selbe nag selbe juuf moom ma ba joxo ko jox Abdoulaye Walimata Xumma mu hmm. am ci maram maram ba maram ba ñu jox ko ñu jox ko alaaji abdou kan mu am ci soxna astu kan soxna astu kan ñu jox ko sëñ si mu am ci sëñ cheikh tidiane si al maktoum ak euh, maam euh, Pape Malick si ak sëñ Abdou Aziz Signor xam ne loolu moo ko waral léegi nag buur siin dafa yónnee nag ci dafa yónnee ci dafa yónnee ci Maba Jaxu ne ko danga maa bett waaye daañ dajewaat maag yow Maba Jaxu sax wax dëgg yàlla am xare ba bokku ci yëgu ko Lat Joor moo doon fayu rek ngir lako ko buur siin defoon <coughs> loolu tax na nag ñi daje somb ci la séeréer si daal di ma Maba Jaxu waaye Lat Joor bëggoon a continuer xeex bi waaye li wax kajoor kay dañ ko tegar bu jëw maanaam jàppoo ko teg ko ci wi ndax wax nañ ko ne ko manam xex bi it bo xexon ba gañe it yow do falu salum kon nañ delu kadior Lat jor waxtaan ak tuwab bi tuwab bi ne ko legi man nga ñew bo diké legi nek bur get bur get ba nga doonoon waaye ba mu dikkee nag yëmu ca get gogé dafa daal tak xaré and ak euh, Ahmadou cheikhou Ba ñom ñom ñi ñi and di xex tuwab bi ca lañ xaré nak ak tuwab bi xare yu metti metti metti mexe xare mexe luga xare yu nak la jor wan ci tubab bi lu dara jarul ba dekk yu bare bare bare bëri eh, Lat Joor nangu ko ba nangu bawal jamono tubab bi bi almagne di di bolo almagne bi bolo wara nek ben rew bi ñuy booloo war a nekk benn réew boo France nag wutoon nag da doon xeex ak Allemagne Allemagne duma ko duma yi méttee méttee métti feebul booba nag tax na euh, tubaab euh, tubaab bi doole ci xaw a wàññeeku yaa di négocier ak Lat Joor daal di koy jox Kajoor léegi mu mu yore Kajoor daal di dem ca ci Yaasin teeñ ci Yaasin Galu Gànna daal di nangu ci moom teeñ ga daal di nekk dameel teeñ kon Lat dameel teeñ léegi nag mu kon mook tubaab bi léegi juboo nañ mu nekk dameel teeñ boole lépp waaye Lat Joor nag biñ demee ba mu yàgg mook tubaab bi da nga gis ne Amadou Sayxu mi nga xam ne moom la àndaloon ci xareb Samba Sadio euh, moom dañoo mujj teqalikoo ba xareb Samba saajo boobee ci la Amadou Sayxu ci lañ ko ci lañ ko faagaagal moom it tubab bi ak ladjor bobu booba ñoo ànd ñoo jige jógewaat ca bi nga xamé nak ñi ngi wara négocier ray bi pour waxtane ray bi ba waxtan ci ba jubo ba nga xam ne ray bi ni mu war a tubaab bi war koo defar mu jóge Ndar ba Dakar nga xam ne ki ñu wax euh, Boyel Maxdaat Seck moo ñëwoon doon ko négocier ak Lat Joor ba ñu waxtaanee nag ba d'accord mu jigi Lat Joor am ñu wax ak moom nag ne ko daal tubaab bi daa bëgga a nangu Kajoor waaw ndax daa bëgg a xaaj Kajoor Kajoor waaw bu ko defee yow du too moom Kajoor gi yëpp mu daal nangu daal di la jor daal di lànk loolu nag ca la am ak problème tubaab bi ba mujj gi tubaab bi daal di koy folli tubaab bi folli ko ndax Lat jor li ko daal mooy eh, ñi àndoon ak moom dañ ko mujj ba mooy Demba War eh, bu naa Demba War bu naa ma jor saa jor. di eh, Ibra Fatim sar ñoom ñëpp dañ ko mujj bàyyi maanaam li ëpp ci ba dañ ko mujj ba maanaam dañ ko dañ ko bàyyi doole ji daanaka nam fa war a nekkee nekkeetu fa tubaab bi daal di koy folli tubaab bi da ko mujj folli ndax it li tax li tax ñu folli ko mooy jàpp ne maanaam léegi dafa ànd ak sëriñ si bàyyi leen ànd ak sëriñ si léegi daal sëriñ si lay waxat baleen xam nga Lat Joor nguuram da koo def mu mu nekk àtteb islaam xam ne woo lislaam islaam dañ daa am nañu ko daa àtteel ma Jaxate Kala ci la bokkoon daana ko atel ah Mamour Anta Sali daanañ ko atel legi lol nak taxna la jor momit moom it bi da ko mujj folli ko tuba bi folle nak daa di fal damel samba yaaya ci la damel samba lo momi it di day tak xare lok damé Samba ya, Yaaya eh, mujj gi Demba War xelal ko ne ko dal yooyu bo nga jéemoon négocier ak tuba bi ndax Demba War bayina la jor ne ko nak ya da and ak dem ki damé Samba Laobé ne ko da ngay jéem négocier ak tuba bi waxtaan ak mom bi nga xamé Samba Laobé dem na Ndar waxtaan ak tuba bi tuba bi ne ko léegi da ngay da ngay dindi sa armée nga dem tok tubaab bi nag toogu yàgg mu xalaat ne daal Dame Samba yaay mi dafa feebul liñ soxla mënu ko yaa di folli daal di fal Dame Samba bi Dame Samba Laobé moom it biñ ko falee mu daal di ba mujj ki xareb gille am mooy xare bi nga xam ne nii moom ak xare xare bi nga xam ne nii nag ak ak albu ñoo ko doon xeex Lat Joor nag daan na def sax di dugg eh, nek Jolof léeg mu tak armée songu kadior maam li tuba bi mom sen cantonnement yi mu song ko way bi nga xamé dambal damel sambalo be falu na mom dane mom du xex ak jar batam waaw batam mom du xex ak mom waaye nak bi nga xamé ne damel sambalo be nak amana problème ak Alburi yi nak dama ko teunk rek am problème ak Alburi ci gilé bi diké nak eh, xare boobu ma am loolu da caa mujj am ak problème ak euh, Damel ah, dañu mujj am problème tubaab bi <coughs> ci gaar ba ci Tiwaawoon ba mujj gi loole nag moo waral ñu daal koy rey Tiwaawoon ci gaar ba ci Tiwaawoon daal di koy rey ñu ko rey nag Lat Joor ci boppam nag léegi nag ñëwaat ngir récupérer waat Damel gi ngir récupérer waat Damel te la dajeeg tubaab bi fële ca deqale momit it bi daal di koy ray Lat jor di euro national nga xam ne jor ku yàgg nek résistance la yàgg nek jambar ngir kaya ngir am indépendance lola tax ñi def ko héros national héros national moy Lat jor musta tayi musta bayyi Ah, ta la jor jamar lo nak tuba bi ay yon ko nopi nak kagne len ci xare ay yon yon yon yon ta la jor def nako xamna xam dal li daal ci teunk rek xamna ku meuna ñew ñëw def ci gën ci def eh, leeral rek nga ñew def ko ci alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh xibaar yi wër te wóor ci Leral Tout TV international.